mooy fi bi muy gis mooy ñor dara jaay ko suy na ay booru gis yi moom suñ faalu ko booru gis yi ah. suñ faalu ko waaye nag ma seet suy na ay ma jox ma ma taalale ko xam naa bu fekkoon démb suñu alal gëstoo gis ko wax naa ne ñoom ay ñoom rek lañ dañoo toppoon Rasulaay di ko liggéeyee bànqaat heure yi ñu topp Cheikh Oudar di ko liggéeyee waroon na ko ñëwaat garab moom mii quatre-vingt-seize laa xam bu ma ko nuyoo bu ma ko nuyoo laa yëg ni leen yàlla bi baax xoolal sept huit ba ma ko nuyee kenn wax dëgg seen guy ma xam ne gëm yàlla bi ñu toog bu ñu ànd bu ñu bu ñu ànd doxantu maa moom li ñuy gisee bëri na tee ko yow naag rek wala bàyyi ko bàyyi ko bàyyi ko bàyyi ko bàyyi ko bàyyi ko bàyyi ko bàyyi ko bàyyi kon sëriñ sama xol sedd na man tuddoo ma kenn bis bi ma jox man jox ma kenn xaatu su tee ma jàll ma pamel suuf ma damay jiyaat damay jiyaat bis bi ma koy tàmbali dëkk ci kër gi man lay dox laay dox doom ñëw jabar ñëw ak sëriñ ku ànd ak àgg yi dox ñu sant Mbàkke kuy wane nit ku baax ñu am xanaa ñu wóoree leer sëriñ Mourtala seetlu moom sëriñ Saliou seetlu ma ba leer ñu yàlla baax na waaye taal bi seetlu moom Mourtala waaye borom paa am na ko bu ma déggee tur bi ko sëriñ Ba nekk góor kenn ku ci am kon sëriñ bi kaay ka ñu nettoyé lu di bëri mu jël benn lettre en français kooku rek diwaan yi jàngaloo ko jël benn lettre arabe kooku rek diwaan yi jàngaloo ko woo koo xam ne anglais la daal jox ko benn lettre anglais mu daal xanaa ko jëm intellectuel la daal mu ne bàyyi sama tool te bàyyi ma te bàyyi ma bopp ne ko jaxatee noonu tudd mu ne kenn ko lekkul fu li ma wax rek tax mu jumaa la bàyyi leen ji rek tax ñu jumaa su ma la woon dooleel Sëriñ Tuubaa war naa yegg leen noonu yow la kuy moom sëriñ billahi wallahi taala mu gënaat nii ku weex sa ñi yaa téye ku weex sa loo ma tànk xaal président sëñ Wassou bay jam bay jam barki borom di yoon na xamu leen ko bay jam yaa ngi ko dugal si la gaari yaa ngi ko dugal si la gaari يكون سوى أعمال أولنا بغير الله لا لا يحسن من كوي تان كوي يسيون ولد المجاز من جاب سرك بارك لا ما لما دار جاب سرك بارك لا سرني ولاية أحمد ولاية أمر المول ما كان يبغى يفعل بعدين Ibrahima tamit ci géej gi yàlla natt ko crise am ci kër gi njaboot gi tàmbali dem sëriñ Baara Mbàkke bokk ñi ñu defar ko ba tëral ñëw wax ko si Ibrahima Faty Mbàkke ne ko ah njabootu si Tuubaa gi sëriñ Baara dañoo ëpp la léegi sëriñ Baara sëriñ Tuubaa ñu ne ko am ah, na ëpp la léegi mu ne bëri nag ci gën a ki nga ñett li nee na teerlu day waax daay daw dana toog ci ginnaaw nu mu def ñu wuti benn sëñ Bara fii ba tëral mu ne nii ci dënn ba ma leen ma leen jubal jubal laaw sëñ Bara mu ne dara ñu ma def laaxal mu jaw kër ilaha illallah ma leen te nelaw na bay sër ba teg ñu ne ko nelaw mu ne nelaw mu bëri waaxu anamu ñu ne ñu mu ne man tamit daan nekk ci dër boo dem jógal laa sëñ Tuubaa bu wutee dara ñëw di ko laal mu ne ñoo bi mu ne yow yàlla li ma la ñaan may ma ñamoom sëriñ Tuubaa yi boo ko jëlee jëlee kenn kenn kenn kenn jëlal mu ne aw xaalis sama doom Abdul Xudoos ak mu ne ñoom nañ jeex waaye ñamoom sëriñ Tuubaa yi bëri Serigne Touba def sa liggéey bi kenn faral la benn lu ngeen ko rek lu ngeen ko rek jeex Serigne Touba xaaj ma so ñu bis si yéen ñuy waxante mooy seen jotaay bay amoon te dara ñuy waxante di defante nii bay ba teemoon ba muy dara ne Serigne Touba da doon waxante mu ne ma teel ma ma ne ko laajte mu ne ma sa pas-pas bi ma bi ma la bàyyi dafa nuróog yooyu maa la ko wax ndax teewoon nga ko nekk yow la keroog balaa ñëwee ba ci digg jéem noonu ñu ma bëgg julli ñu aay ma seen gaal ñu ne ma foo bëgg jullee ma ne soor yaa dégg nga moom nee na julli day jot may waaj ñëw foo la ma ne ma foo ko bëgg a def ma ne leen fu soor yaa ñu ne ma doon bëgg soor yaa suñu ñaar la sëriñ Tuubaa ne na ma mas laa bëgg julli waat ñu ne ma doo ko def julli Sëriñ Tuubaa nee na ma mas laa bëgg julliwaat ci seen biir gaal ñu aay ma léegi nag nee bàyyi ko saa dara di ko saa si biir bi di ko fekk léegi mu mujj loolee damaa koy def yàlla xamul ne soo ko defee moom naa koy tuuti fekk baax na ci loolu yàlla musal daal ne ko teerlu yow itam li nga def dégg naa ko waaye xam naa ne dama ko ci wilaay daal ne ko teerlu wilaay pas-pas man la loo xam ne wilaay du ko man wala su ko mënee ko fekk sama baay laa nekk kaw nag Ousmane Ndiaye Abdoulaye Diop génn àdduna ñu di ko yoo yoo génn àdduna bu bees rek ñu tëral ko mu ne la xam fi rek Ousmane Ndiaye sa waay moom ne la mu ne saa moom ñu ne waaw mosu yow daal la saa nga ko ne juróom la bii sëñ Tuubaa mu ne ñoo ko bind tural ci beneen daal ne ko demal wari taalibe yi ñooy def jeeg jeeg jeeg ba mu yàgg mu jub dem wari taalibe yi fanweeri at ak ñett dund daal bililiyo ko naa ko lii ëpp la def ko ci laay damaa nekk sama pas-pasu bopp bi ak pas-pas bi ànd ma nekk ci biir moo tax murid